waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu yi nga xam ne ne safoo suñu seen bi di Diwane TV ñu ngi leen nuyu baax di jaajëfal waaw càngaay bi ñu leen bëgg a mooy càngaay bi ñu leen doon wax ci képp koo xam ne itteewoo ko ko maanaam càngaay bii nag dafa doon càngaay bu kéemaane boo xam ni képp ku ko am ko nekk say mbir bu ubbeeku ragal naa dootul ubbeeku mukk ci àdduna wallaahi faatixa la bu yéeme boo xam ne dañ cey dugal aaya ubbiku yu ne gis ngeen ko nii waaye nag liggéey bu mettee métti la lool la ni ma ko waxee rek bëgg ko nag taxul nga am ko waaye boo ngeen defee commande di ngeen ko am incha allahu rabbi ndax dañ koy commande leen hmm, koy defee rek tam xaw naa cher moom fax dëgg ndax liggéey bi daa yombul liggéeyan ko ci loo xamante ni bii day jàppandi lool lool moom xaw naa cher waaye am gi daal moo gën ñàkk koo am gis ngeen liggéey bi ni mu bare Euh, liggéey la boo xam ne nag boo ko bëggee boo defee commande incha allah rabbi des na la dugal liggéeyal la ko ni ko bëggee buñ ci waxtaanee ba déggoo ko defee nga daal di avance li nga yor mm, boo mu noppee nga mottali li si des incha allah rabbi foo mën a nekk ci réew mi dañ fexe ba nga jot ci ñi nga xam ne noo nekk bitim réew itam buñ ko bëggee ñamit incha allah mi ngi nii euh, dinañ fexe ban jot ci ñamitam incha allah rabbi loolu moom du jafe. waaye gis ngeen liggéey bi ni fooy yi baree ak ni mu xaw a méttee faati la boo faati la boo xam ne cee dugal mbir yu kéemaane càngaay baa ngi nii am na yeneen i mbir itam jaaroot tam mi ngi fi may jaara bi lañ leen présenté sunu chaîne bi moom it am na ak yeneen i càngaay yoo xamante ni bii ak yeneen mbir yoo xam ni gis ngeen kiit tam moom it ñi xam ne noo nekk réew ma te bëgg ay kayit wala ñu nekk fii itam Sénégal di lijjanti ay kayit pour dem réew ma gisoo ko mi ngi nii. yaasin la bu yee boo xamante ne bii bu saabu yàlla képp ko jëfandikoo kayit boo bëgg na nga ko daal di am incha allahu rabbi liggéey baa ngi nii kon gis ngeen ko nii des koy liggéeyee càngat bi tam mi ngi nii képp ku nu bëgg a jot tam mën ngaa woote 77 793 94 37 wala nga woote 78 306 88 32 jokkoog Serigne Saliou borom tawféex euh, liggéey bi daal lépp a ngi nii gis ngeen ko. jaaro it tam jaaro wërsëg yi am na ak yeneen mbir yoo yëpp lu ngeen bëgg rek bu la yàlla buñ si jokkoo incha allahu rabbi léegi nag ne woon nañ ko présenté mbokk yi xam ñoo nekk seen bi ak bépp jullit boo xam ne téewoon na ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jërë ngeen jëf